ñetti sëriñ dinaa leen tudd kenn ki laa njëkkee mooy as barham damay teg kaamilu alxuraan mhm. surtout inshiqaq bi riwaayati Hafs an Asim su ko jàngee baax na wa bi riwaayati Warsh su ko jàngee baax na su ko jàngee jàngin bu rafet ma jox ko 10 millions moomi ci internet lëmbeeb dafa am lu ñuy wax xam-xam mhm. am lu ñuy wax gaafu làmmeñ dafa am mooy loo tudd rek mu yàqu paa boobu ak yet wi xamul dara surtout inshiqaq surtout inshiqaq mhm. bis bu ñëwee ci daara ji solution ñu teg ñu jàng ko te dañ koy tiim buñ ko jàngee jàng bu wér moo xam warsu moo xam xafsu ma may leen 10 millions ñetti sëriñ yi gën a lëmbe dëkk bi naan di diw day deeg lii day am ak dañu fen gis nga. ay xamoon naa ne jàng day dee ak ki ki ma gën a mere gën koo mu daxa fen mooy ndaw soosu gën ne jaaga dañ ko teel a tàggee mais loolu dafa ñaaw. bu ko defee li may waxaat di ko naqaru. Mhm. to bëgg naa ñu wax ci nga wax ci. Mhm. mooy borom kaala gu rëy googu. ku mën a fen la nag. ak yetam woowu. Mhm. dara waru ko lu mu dem jàngi. Ahmed billaahi wallaahi wataalaahi damay waat alxames laa sangoo ajuma ci ngoon la ma Wally Seck woo may ma un million. waaye saw xarit boobu nga tudd léegi muy Wally Seck. mu koy jàll. di ñaanal yàlla way juróom yàlla eggee ko ca aljanna yi gën ya kooy mhm. ndax jalaal moo fi am ak jamaal mhm. ida raayta madharal jamaali mhm. la tadqa warda madharal jalaali bu neexee da sant waaye bu naqaree dangay ngay mun asalaamaaleykum maa ngi fii ci docteur Cheikh Khalil ponkol maa ngi nii de ki nga xam ne nii mooy boroom waa kër daara ji solution ki nëbbu nag te bëggul feeñ sëriñ yu bëri billaay yaa mën maa ci xam dara seexal xalil xam-xam bi wóor na xam-xam bi rëy na maa ngi lay nuyu. jërëjëf li maa ngi lay ziar. yaa bëri xam-xam macha allah naa ci xam dara. ngeen baal ma. billaahi sama ko mbaak këccëb la nga ma jox ma sama ko ca kaw fan yooyu damay am xaay ba foog ne lii mbaa jàmm la. cat moo la toppoon rek bi cat li demee. bilaay wax nga ma ko bilaay wax nga ma ko. te joxoon naa la loo xamante ni la nga demoon ba ca taatu guy gi. ca sangam waaj waaj léegi torox na mu ngi fekk ak lambal. gis nga bis mu ñëwoon. Mhm. soo ko dóoree su daanoo tamit bu mu tekkee ngemb dañ fekk loo xam ne dafa xaay. sama combat këccëb laa la ma woo vocal la ma vocal na ma tey la heure bii bés sangam boo ko daanut ma bay ñaan ma dem këram. ma xam ne sonn na ci billaay wallaay ba ci xom cuur mu ne bi nelaw ma barke Seydina Mohamed mu jox ma garab ni ma sangoo ko léegi ket moo la sonal ba ma ko sangoo mu jox ma li may sangoo pour ubbeeku barke Mohamed billahi wallahi wataalaahi damay waat alxames laa sangoo ajuma ci ngoon la ma waali sekk woo may ma un Eh, mm-hmm. billaahi wallaahi billaahi parce que sëñ naa may wax ni billaahi wallaahi taala dëgg wér la mm-hmm. alxames la sangoo garab bi ma jox ajuma ci guddi la ma waari sakk woo may ma un million yéen kilifa di ma woo di ma teral to lam bi amul moo tax tey dina foog ma sant la gërëm la parce que nit boo defalee lu baax da koy wax Sénégal léegi dafa am sëriñ yu mën a fen yoo xam ne du nu def tey wax mais comme sang yi nga xam ne dañuy def foog ngeen di waxal lu baax que sëñ Bamba Mbakke yaa baax yaa gore. jërëjëf doole docteur Khalil maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay bu baax wala di mm. kontaan. Mm. ku baax nga ku gore nga. Mm. ndax bi ma lay xam da nga fi àndagoon ak say nit. ñu fen ñi wor ku fen woor nag sa wërsëg day tëju. <laughs> bokk ci jamono ji mooy ngay fen ak a Cheikh Ibrahima Fall def na woon fenkat ñetti bis bis bi muy fen bis bi ko ñëpp di xam ak bis bi ko ñëpp di ba jërëjëf wuli kontaan na trop waaye saw xarit boobu nga tudd léegi muy Wally Seck mhm. mu koy jàll mhm. di ñaanal yàlla waaye juram yàlla eggee ko ca aljanna yi gën a mhm. ndax jalaal moo fi am ak jamaal mhm. ida raayta madharal jamaali mhm. la war warda madharal jalaali bu mhm. neexee da ngay sant waaye bu naqaree dangay ngay ndax Wally bu fekkee tollu na foo xamante ménagères yi ñu ngi bàyyi ñañ doon ménager di ñëw ci moom feccekat yi daw di ñëw contrat yu bëri national ak international mu dem ba Youssou Ndour léegi bu tëddee tëggee première janvier du safe ndax Wally moo tëgg 31 décembre kon bis bu dee ñëwee nga xamante al mawtu baabun wa kullu naasi daaxilu de bunt la boo xam ñëpp ciy dugg. Mm. dara desetu ko lu dul. Mm-hmm. mu ñaanal yaayam. ñu ngi koy jaale bu baax. muy dem moom ci boppam ci internat yi ci borom internat yi jàngalekatu alxuraan yi ragal yàlla. Mm-hmm. mu di leen jox xaalis ñu ñaanal ay waajuram ndax bis dafa am ku ñëw ci daara ji solution fekk ma sama biir néegu biir ñuy waxtaan. Mm-hmm. ma ne dafa gént coon sekk li may wax duy caaxaan duy waxantu dafa la defal teraanga moo tax ma wax loolu te ma nit bi bi bi mu géntee wàlli euh, coon sekk ma ne ko sama njaboot dañ ma sàggane ñaanaluñ ma yàlla te billaahi wallaahi tallaahi lu mu am la jar jarul ko muy fen te doom lenn rek la desal waaye juram mooy mu di ko ñaan nit ku su faatoo léppam day dagg ba mu des ñett doom ju baax ju di ko ñaanal garab mu sampoon nit ñi di sa jariñu may lépp lu njariñ rek jàkk ju mu fa tegoon wala teen bu mu gasoon kon nag doom ju baax fi muy amee njëriñ dëgg-dëgg mooy sa yaayu gaañu nga ñaanal ko après nag mu mm. continuer doxal liggéeyam dëgg la dëgg la ku baax la bu ko defee li may waxaat di ko naqaru mm-hmm. te bëgg naa wax ci nga wax mm-hmm. mooy borom kaala gu rëy googu ku mën a fen la nag ak yetam woowu mm-hmm. dara waru ko lu mu dem jàngi maa ngi waat dix millions laa tekki taabal bi dix millions moom ak yeneen sëriñ ci borom karaw gu bëri ak yeneen ñuy def pexe ñett lañ ñu ngi lëmbi internet bi di wax te xamuñ dara. te dëkkuñu Dakar de. ñoom ñett ñoon muy mhm. borom kurus gi borom borom kaala gu rëy. Mhm. paa boobu ak yet wi xamul dara. ka dëkku Thiès sortu inshiqaq sortu inshiqaq mhm. bis bu ñëwee ci daara ji solution ñu teg ñu jàng ko te dañ koy tiim buñ ko jàngee jàng bu wér moo xam warsu moo xam xafsu ma may leen 10 millions ñetti sëriñ yi gën a lëmbi dëkk bi naan di diw day deeg. lii day am ak dañu fer rek. dañu gis nga al xaybu lillah yàlla moo xam xaybu bu fekkee nag da nga am link ci kër jaamur am ko fa feebar da ngay génne ne diw sangam léegi mu de parce que ma ngi nekk ci état boo xamante ni moom yaakaar ci moom yaakaar. Mhm. nga génn wax ko waaye duul yi ngay duul. Mhm. ne combat sangam diw mooy daan. loolu xëy bi yeer la. Mhm. xamoo ko yàlla ko xam. te pour nga xam ko nag dangay ngay jaamu yàlla da ngay sell. comme que eggoo fen nag moo tax boo waxee ci xëy bu loo xam yàllaa ko moom da fen mm-hmm. waaye diw dina dee nangam nangam loolu lañ ko bàyyi mm-hmm. waaye sëriñ diw sangam borom kaalaj mm-hmm. ak boroom yet wi maa ngi leen di defee ku ci mën a jàng sootu insiqaaq sama kanam daal daari solution ma jox ko 10 millions kas amul de banque rek kas dëgg la noonu li mu wax dafa am solo parce que léegi dafa xale YouTube bi dafa yàqu sëriñ si dañuy gën di fen ay xamoon naa ne jàng day ki ki ma gën a mere gën koo mu daxa fen mooy ndaw soosu gën ne jaaga dañ ko teel a tàgge mais loolu dafa ñaaw di jaale aussi wàllu set bu baax a baax nit ku baax la vraiment loolu topp xale ni ko waxee dama dafa teraanga boo xam ne vraiment fii may dee du ko fafate mukk maa ngi koy ñaanal yàlla na yaa yàlla na sarax bi yàgg ci loxoom mais vraiment sëriñ su mën a fensi man nag kenn du ma gis ci fenkam fenkat xalaatuma ko sax parce que man dama dëggu bëgguma fenn mais sëriñ su mën a fen seen ngi toj youtube bii fen rek la ñu mën diw day dee diw day daanu barke sëriñ Bamba dañuy fen xam nga fadu allah muxlisina lahu diin mhm. ñun suñu dund ñaan yàlla rek lañu soxla mhm. te yàlla dafa digle ñu koy ñaan mhm. dafa digle ñu koy tooñ di ko baal yàlla daf ne yonent bi sallallahu alayhi bu la gaa yi laajtee ana man nee na man ku jege la. ku jibu daawata daa iza mais xalil. bii ba nag. moom ngay naan rek jógal. naan ko dal bii naanal léegi ba mu egg fii. déedéet soo ci naanee lu ëpp lii da da ngay rey de. boo ko dalee xam nga yaa ngi doon dégg naan day jóg te doo daan. nay dëggatoo daan du daan. te loolu baaxul nag sëy balaa neex nga daan. kon mbokk yi. Hmm. sëy balaa neex nga daanu mayit bii boo naa ne doo gaaw daanu mooy naan jogal jogal sëy sëy bu yant te doo gaaw daanu bii waaye nag am na boo xam ne moom man xam naa ko mooy garab bi nga xamante mooy tax nit ki tàqali ko néew kàttan à vie ah. même boo amee léegi pour nga sëy après soxlawaat ko déet da koy naan tey mu jàpp nga bàyyi jàll ci leer. kii boo koy naan. même boo amee feebar boo xam ne dafa nekk ci yaram. pour ngay gaaw a daanu da koy dindi. da koy dàq dagg ko ba mu set wécc. moom lañ ah, tuddee ci wax bu gën a rafet. mooy naan koddal mooy wax bu gën a rafet te dëgg la mooy nit ki lu ko teree koddal bis bu naanee garab yi koddal koddal gi day dëgër sëy gi day yàgg. ah kon de bii kon de bii loo ci ab doyut naan ko daal am na ñoo xam ne ko daal mooy te bii laa wax saa waajaa ngi jalaal jalaalu jalaal jalaalu jalaal bi yi nag bari na te bokkul bi téer yi daa nuyoo bokkul parce que bien moom bi yi bari na te bokkul dafa ñëwoo bokkul waaye bii. jalaal lu muy faj yow naan nga ko lu muy faj. bii boo kon ba ma kon naanee fii. Ah. avant may am une heure de mhm. sama biir bi. lancé ma. Mhm. waaye ca guddi ga. Mhm. laa Muhammad rasulullah baax na ni. gis nga bii. ripu sey la. noo xaaral bii. jamaïcain xam na ko. sa waay la man maay wax loolu bi <laughs> bii Lamine Lutte TV xam na sa waay la Lamine ñoom xam nañ butéel bi mooy lan jamay kee xam na bi yaa mar bi jamay kee xam na ko Lamine sa waay Lamine Lutte TV xam na ko xam nañ ñuy def ku baax na baaxul laajal wuli ak Lamine wala nga laaj Lamine wala laaj jamay kee ndax moom waaw man Lamine am fi andi macha allah muy nit ku baax Uh-huh. moom ma fi ànd àndi waaw suñu xarit la jamaïcain ah. aussi xam na ko ndax lii ni ñu ko doon jaayee mooy lan mooy suñu wóllëre yeeg am di jàmm yi dañ koy jox mm-hmm. ndax cooli cooli ku nekk da ngay tëddi de mm-hmm. te ku nekk ngay ñaan wut jabar waaye ne gis nga sëy balaa neex mu yàgg mm-hmm. awara balaa jóg dëgg la ngi ñenaan naan koddal nga day dëgër day taxaw te kii day raxas deret xanaa kon loo tax sa boo ko naan sa biir euh, première fois bi mu lancé ko lépp lu nekk ci biir. Ah. day dagg barke Muhammad dëgg la. émouride koy dagg moo tax awra lii may wax xam nga ko man xam naa ko. jafe xam bi moom naan naa ko bi moom naan naa ko. ñoom laa tuddee wax ñeneen. bi moom naan naa ko man man dama fen bi moom waaye ñooñu samay xarit lañ jabante naa ñoom mën naa leen ah, wax. dëgg naa yow say gaan la ñu wax say xarit waaye fii amul ku naanul jalaal ak jéggi dayo man de bii moom. yàllaa ma tibb naan naa ko te boo naa nit mu nga jaay ko ko gis nga kële taxaw ci gannaaw na le moo nekk moo yor daara ji solution foofu ci Verona Italie mhm. waaw taw gars yi dañoo nee na ma léegi mhm. Modou Modou dawal lu met trois cent kilomètres mhm. oto ngir li ñëw naan ko <laughs> foofu parce que dafa dafa set maam koddal ak wér yaram te bii jàngoro lay faj moom jalaal bii man xam naa jalaal naan ko dal mu ngi nii waa est-ce que. Ah. damay laaj de man xam nga dama laaj. Ah. est-ce que mën nañoo boole bi ak bi xaa ko da nga faatu. loolu loolu boo koy def da nga yor ñaari jabar de wala nga yor. naan bii tuuti naan bii damaa bëgg a leer la boo ko dalee bii bii teel a nga yàgg ci affaire yi. damay wax lu leer. Hmm. ku naan jalal ak jéggi daay moom da ngay tàqale ko néew kàttan ba pare dangay ngay sawar da ngay daj ci émorite da ngay daj ci suukar ak xorom maanaam doo jabet soo ko amoon dina ko yemale. awra biy dellu ngir hémorroïde da koy dagg faj ba mu wér ñaar yi booleen boole mooy li gën li gën a ëpp nag nga xam dafay ëpp mooy awra bi boo ko booleeg pommade bii pommade bu nooy la ba mel ni beurre day dis awra bi day dis naa la fi ay jamono noonu daaw waaw daaw amoon naa ko daaw ah da ko bëgg amaat waaw waaw ma <laughs> kon day ëpp <laughs> ah bàyyi awra bi gis nga gis nga kee toog na le kee toog na bi mu takkee jabar yàggul ah, ah. waaye dafa yéex a takk jabar ndax awra ba day dellu. daa gàttoon dafa gàtt moom rus na su meeku ngir jabar di ko xool. mu ngi nii waaye biñ ko jébalee soxna si ma nga nee di ree yëf yaa ngi mu nga ngi nii daf ne. saay saay xool moom daf ne. Ah, xaj na sam xaju si dina ci ci dugg coow lu rëy dañoo mujj dem pharmacie daal am luñ mën a jël liquide bu ndaw rek pour mu mën a tax. ndaw saa ngee mu ngi ree te gis nga beneen bi mooy am na keneen ku ko jëndoon ci daara ji solution. Uhuh. ba mu demee ci soxna si. Uhuh. lii toll wu toll Facebook. waaw mhm. li xew nga ne gaa ngi lay woo waaw bii jox nga ma ko daaw. Mhm. lu muy def moom bii lu pour yokk awra la. awra awra bi day diis. da koy guddal. da koy da koy reer. da koy reer ba pare li ma ci jaaxal. Uh-huh. yéen ni nga koy xam ni. Uh-huh. mën naa ma ak yow deux mois. gaawu jeex. da ngay diw di ràcc rek. muy gën man bii du naa ci un mois tu xaajul. ba ba ma santee ne awra baa ngi yokku nga ngeen baal ma uh-huh. ma mu uh, tëj maye kama ko may mag la <laughs> mu ngi diw moom it non xam nga tey aw lii maanaam lii xam nga ci comme gën a baax <laughs> mooy koo xam ne fekku fa dara kii paa moom yow ay wala nga dem koo xam dem na ba nga xam mbir yi dafa lax sama waaju saay saay laa laa ko mayoon mu ngi mbuur benn waay bu garaaw waa ji xam nga lu ma wax kontaan la uh-huh. Radisson uh-huh. ku siiw la. moom dama ko rus dama ko tudd waaye def na ma sëriñ bi gis naa la ci tiktok bi kaay ma gis la mu gënal ma café berne ma ci radisson. Mm-hmm. ma na ma sama affaire yi daal damay jàpp di nuux. Mm-hmm. te dégg naa ci internet nga ne koy bu tolloo ni war a toll dëgg mel ni war a mel. Mm-hmm. doo jàpp di nuux. waa ji dafa am biir bu rëy. Eh. neena na yi bu bëggee sëy da jeex di jàpp di nuux waaye bi mu jëfandikoo garabu awra bi nee na biir bi li muy rëy rëy rëy. gis na ne kooy ngi. da koy jëkk donc kooy bi day yóoru. <laughs> garaaw ndax maanaam. dafa nga war a ngëb ngëbaat bopp ba def ca kaw. looluy awra. ngëbaat bopp ba def ca kaw. li ma leen xamal mooy. awra bu baax euh, garab bu baax a ngi nii ci awra. Uh-huh. ku bëgg sa awra yokku. Uh-huh. wooteel fii ci daara ji. daara ji solution. daara jaa ngi nii. Maodo ngi uh-huh. nit ku baax. docteur Khalil mu ngi nii. ñun ay nit daara Khalil. barke sëñ Bamba. billaahi jarul may fen bi may ñëw fii jox ma dërëm. dëgg sama nit defal ma teraanga sa sama komba mhm. ma gis ko ma fay la teraanga. Mhm. jarul may fen mais barke Mouhamed garab bii. Mhm. bii ñam ñam naa ko. xam naa ne baax na. bii ñam naa ko xam naa baax na bii nag ñamaguma ko mais dinaa ko ñam tey man du fen bii ñamaguma ko moom. mais xam naa ne baax na waaye ñaar yii ma ñam. ci garabu kattan. ku ko ñam ci garab kattan. Ah, dafa ko bàyyi bu gàtt. awra bu gàtt a ngi nii. Ah, bii pour sëy la. ku ko naan. te sëyoo bu baax. woo ma nee ma William na fen. léegi xaaral man man dama fen bi xam nga beneen mooy am ñu bëri. bii mooy dañuy seen awra yi mooy mballukat yi garabu mballukat yi borom saw bi ci douze bi seen garab a ngi nii. léegi bi bi mu def. bii day tax nit ki bàyyi mballu. moom ni nga xam dañuy. expliqué ma foo seen awra. waaw te boo ci fooy dafa am ñaar loolu bàkkaar la képp koy fooyee awraam bu ëllëgee yomal xam du gis yàlla kon du dugal jànn te fooyee sa awra muy mballu moo gën a bon gën a xaram njaalo. Ah. te juróom-ñaar a ngi nii ëllëg yomal xam safara direct yàlla du leen xool du leen sutural du leen yërëm kuy tëddee bàyyi may fas ya xaj kuy tëddee jabaru jàmm ak kuy mballu bokk na ci ak kuy rambaaj. ah inna di la ko arab di wax. laa yanduru llaahu yawmal qiyaama wa yati yawmal qiyaama wa yadu xubla képp ko xam day mballu boo léegi yawmal qiyaama da nga ñëw sa loxo bee biir xadis laa lay wax yaa ngi fii ci daara gi solution ak docteur Cheikh Khalil wuli kontaan na looy wax ñiy mballu kat ñiy mballu bu dee yaa ngi ci réew mi wala nga nekk bitim réew wooteel ci Cheikh Khalil daara ji solution te beneen bi mooy bu fekkee da ngay dangay dem ba awra bi day lax si di day bàyyi bii day réparé waat si di mu gën a bàyyi safaray saafara jàngoro saafara jàngoro. lépp luy jàngoro daal fii lañ koy faje durant sept jours. waaye daal maa ngi lay wax ne daal am na sëriñ yi sàngam. Hmm. ak sàngam sëriñ yi gën a siiw. teg naa dix millions ci taabal ji borom kaala gu réy geeg yadu weeg moo dàq fen dàq duul xamul dara day enregistré ay vidéo bàyyi ba dara xew mu dóor ko. Hmm. ndaw soosu dara waru ko du mu leen wuti jëkkër. wallaahi mu ngi ñaaw de léegi liggéey jaay bi jaay bës. mu naan mu naan ah, après man de gis naa appareil décès bi coow si Waly Seck di fen rek gis naa coow. mais jërëjëf Waly Ouli kontaan na trop mais attention. jërëjëf kontaan na trop de. yii kese nga fi am. déedéet dañu yemale ci lii. am nañ fi boo xamante ni foroote la. xoolal lii. xoolal damaa sob nag. Ah, yow nga de ki mooy ah. saafi. damaa sob nag. ki mooy saafi. saafi. xam nga bi ñu doon wax boobu ba léegi ci góor ñi lañ nekk. Uh-huh. mais bii pour jigéen ñi la. jigéen yow nag jigéen ñi dina la man a de. non jàppal xam <laughs> xam nga jot gi moo bëriwul. Ah. ñee ñëpp man la ñuy xaar ma ne. Ah, ah. cancer. kyste. fibrome. diabétique. Hmm? ulcère. gis nga képp ko xam ne da am cancer. boo naanee garab yi fa mu yem ci cancer fa lay yem bu fekkee amagoo ko yaa ngi koy daw naanal garab yi da nga koy bàyyi allahu akbar fa muy tëjee xamalan mooy wulli mhm. gisal ma képp koo xamante ni moom problème am lenn rek la mooy ñàkk am doom mhm. mosoo am am bu tuuru wala dem nga ci hôpital loolu da koy faj man dama ci moo koo xamante ni rek moom problème moom mooy mënuñu moo néew wala moom am doom wala mu dem ci pharmacie ak hôpital yi bañ na ko yow amuñ ci yow yaakaar pour nga am waxaatal ma lii lii dafa am solo garab gi mooy saafi wa ida maritu fa yasfini alquran la tudd alquran ni ma ko tuddee yombul ci internet bi de mhm. garab gi turu yàlla bi laa ko tuddee saafi saafi mooy yàlla mooy faj ci turu yàlla woowu wu barkeel woowu saafaraang fi lemang fi soixante-dix aaya yu bokk ñeen ci biir sootu la xaafan ki sootu sooraan ki sootu inshiqaaxan ki kis fi borom demal bañ war la demal bañ war la opérer amal jabet yow jigéen hmm? ma ne fexeel ba nga xam yow amoo doom ñu nga lay xas si kër gi sa sëy ngi tas ndax li sa problème mooy ñàkk doom yóbbu naa ko Maroc bërki démb jox ko fa benn nit yàgg na yoo xamante ma ne maa ngi Maroc ma ne maa ngi Maroc maa ngi j maa ngi dal fu ñuy wax Babul Madina ci fees mu ñëw ma jox ko si quatre bouteilles ne ko naaneele ko mu jógee fa dem Europe jamono ji may wax yow ni ëmb na te gis nga moom doom ju góor la lay may wala mu may lay. fii kay koo gis sax xam ne om lay gisoo biir baa ngi. garab dafa yéeme de. xoolal mbir si xoolal si dafa yéeme de fii mooy yi gën baax fi la nekk. kon nag Sénégal maa ngi nii daara solution mu ngi nii docteur Khalil mu ngi nii Maodo mu baax mi mu ngi nii képp ku bëgg sëy sëy bu yàgg ñëwaat ci daara ji solution képp ku bëgg sa awra gudd mbala mu rëy mbala mu diis gan ñëwaat fii ci daara ji solution képp ku bëgg a sëy amoo doom ñëwal fii nga naan li am doom ku am jabet ñëwal. ku am fi fi fi borom yaa ngi nii ñëwal ku bëgg ku dal léegi nag sëy léegi. ku dal léegi ku dal léegi sëy léegi. ah moo yóbbu. yombul wax ji day ñaaw day rafet mais ko rek lay def boo koy naan di koddal. koddal a ngi. léegi dix minutes koddal lii ne moom ah bi xam ne dama ko yóbbu koddal saraay bi ko ko naan lii loolu lay def asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.